<laughs> doo lekk doo naan doo nelaw. diwlu pare amoo amoo carburant <laughs> te yow say pare nga dugg ci gox boo xam ne lu néew ci ay pare nga am. ba pare. Euh, mais 06 la. yow foog nga ne. non non non citoyen waaw yow ah, yow moom pare nga citoyen ngay mën a def candidature individuelle quoi. ba pare xam nga parrainage yi <laughs> xam nga ñoom Amadou Ba ak consort yooyu ñoom Sonko bu ñuy dem dañuy tegale 4 4 ay 5 8 8 yooyu quoi. waaw waaw gars yi dañu naan ah ñii ñoom jar nañoo recevoir moom moom itul indaale nañoo dara mais man sama gars yi laa yore su doon yii ñi koy puus ak yooyu gars yi xam ne ñii <laughs> yoruñu dara ko wax ji du bari sax buñ la nattee daal xam ni saa yi yow ay waxi kese nga leen di ah gars yi ne la taal loxo ñu ñaan waaye ñu def ñaan. mais politique daal fii Sénégal yàq nañ politique. non du ñu tax a découragé. Ah, moom danañu dem quoi. am mais nga ne la réponse par rapport ak provocation yi dafa a doon neneen. très bien léegi nag euh, très bien. mooy dynamique bi nga wax nii. bien mais dynamique boobu hmm. euh, Ousmane Sonko moo koy impulsé dinañ la koy impulsé hmm. euh, bañ a bàyyi gars yi. Hmm. ci seen affaire tooñ yi ñu nekk naan ay rajee nañ ko. waaw ay bokk naag yooyu. moom mu lancé coalition ñëpp xam ne Ousmane Sonko mooy candidat wu. bu yeboo sax ñu wutal ko beneen récépissé. ou mu def mu def beneen kii mais ñu xam ni coalition Sonko 2024 taxaw na léegi nag loolu su baaxee. su bokkuwee ñun suñu coalition góorgóorlu yi coalition ñeneen comprendre nga. Mm. coalition X Y. te ñu ñëpp ñu relever de l'opposition cest di dire que euh, euh, nous c'est l'antisystème su boobaa dañuy mën a poser des actes politiques yoo xam ne bu ñu toogee ñun candidat yooyu yëpp déclaré mën nañu xeexandoo ay affaire comme parrainage bi mën nañu xeexandoo comme pour transparence processus bi mën nañu xeexandoo ci ministre bi est-ce que ministre de l'intérieur moo koy gérer et parce que question yooyu il faut ñu doog bloc pour mën ko xeex mais mënuñu tëb Siré di wax fii kee di wax fee kee di wax fee et cetera mais bu dee dafa continuer ci provocation bi nu ngeen def su dee ne mm-hmm. provocation dafa yegg ci comme ni nga ko waxee sànq mm-hmm. leen ko aaye mm-hmm. que jafe na leen fi mu bi ñu bëgg a marché leen ko. Mhm. mais ñenn ñi sax bu ñu def réunion. jafe léegi nag loolu nag est-ce que bu dee provocation dafa yegg ba foofu. très bien loolu loolu ñu leen koy aaye. boobaa nu ngeen di def. xale boobu lu ñuy def. Hmm. tant que ñu ngi nekk individuel amuñu doole. Ah. mais bu ñu boolee ñun ñëpp opposition bi déposer dans les règles de l'art ñu bañal ñu ko su boobaa dañuy wàcc ci terrain bi comme ñoom. Hmm. parce que su boobaa dañuy nekk masse critique comprendre nga. su boobaa ñoom luñ ci bañul bañuñu ko ci. Hmm. ba ci grève général xam nga école la nga waaj a ubbi. waay syndicat yi léegi ñu commencé doxaat ak yooyu. comme ça lu euh, c'est-à-dire ñu fi nekk di xeex ak policiers yi. Hmm. duñu fi nekk di xeex ak gendarme yi mais danañ xeex ak système bi. système bi waa xeexu politique. Hmm. comprendre nga est-ce que comprendre nga. bu ci dalee sax ñu décréter ay ville morte hmm. ay transport euh, euh, maanaam du am Dakar ville morte et cetera Dakar ville morte c'est-à-dire que mais xeex boobu mënuñu ko xeex en étant séparé comprendre nga Ousmane nekk dans son coin ma nekk dans mon nekk dans son mais loolu ngeen fii ay parrainage yooyu dana sotti. non waa réew mi tamit ci programme ak par exemple euh, pré xam nga xam nga affaire yooyu. yooyu yëpp ngeen a boole ndoo. mais xam nga affaire hmm. ah. mën ngaa dem lijjanti say parrainage altine ba àjjuma. waaw ah. comprendre samedi ñu daje fi def benn modulé mais c'est que euh, euh, yeewi askan bi. dynamique bi mu amoon. loolu dee na est-ce que comprendre nga. dynamique bi mu amoon dee na ak force bi mu amoon ci ñaari local ñaari élections yi. locales législatives. dynamique boobu dee na kon nag il est dans l'intérêt de Ousmane Sonko en tant que leader de l'opposition mu insuffler benn nouvelle dynamique boo xam ni après les jeux sont clairs. ceux qui sont avec le système toogee ne. Hmm. ceux qui sont avec le système taxawee na le. léegi sera battu autour de Niancone parce que. au de ñu ngi wax yaa ngi wax ni Yewwi wi dee na mais xam nañ ci en dehors de Khalifa mi ngi junj ay ñoom Barthélémy Diaz gis nañu. de l'autre côté a ngi fii. non dugal foofu. waaw non dama ne en bokk non dama bëgg wax waaw non fa laa jëm. yow yow fee <laughs> waa taxaw yi ak mi. waaw ñoom fee nañ bokk. fee lañ bokk Abdourahmane. oui Abdourahmane Diouf oui ñoom Arona. ak ñoom Serigne Gueye. ñoom Bougane ñoom Mini. ñoom bugaan ñoom côté bee nañ bokk. ah léegi foofu la war a créer dynamique. très bien c'est-à-dire que Ousmane euh, lu tax mu war a lancer c'est-à-dire que euh, euh, Ousmane dafa war a euh, impulser benn dynamique ba nga xam ne élection yi di ñëw xam nga lan lay doon. Hmm. ñun contre ñoom ñun contre ñoom. léegi nag très bien. ñoom continuité contre rupture. très bien système entre antisystème fa koo bi léegi nag système comme antisystème il y a des candidatures multiples. oui comprendre ñoom ñoom soo demee mën nga fa am Amadou Ba Boun Abdallah Dionne euh, PDS euh, euh, Khalifa am Idi. Hmm. ak ñeneen ñuy fàqe ci ñoom mooy ñoom ak ñun ñun nag ñoom mooy ñoom Ousmane Siré Déthié. Abdourahmane Ndo Arona Coumba Ndoffé Bougane Mimi et cetera Maître Moussa Diop. Mm. et cetera Alioune Sarr et cetera ñu nekk suñu bloc. léegi nag ñun ñooñu am nañu benn euh, question yoo xam ni ça c'est transversal ci suñu candidature ñun ñëpp. Mm. parce que day laalanoo ku ne loolu nag ñu am benn. plateforme derrière. Ah. boo xam ne dañu fa toog di ko waxtaanee pour mën a def parce que ñii dañuy tooñ comprendre waa comme dañuy tooñ nag. ah ñun tamit il faut ñu wàcc kii. wala kon yow da nga jàpp ne affaire rajo nañ ko yooyu yëpp. tool rek non yooyu caaxaan la rek. mais bu ñu deful say. Hmm. Ousmane impulsé benn dynamique. ñu regroupé wu autour de dynamique boobu. Hmm. chacun nekk candidat ak garde coalition mais ñu xeex affaire yii yooyu dafay yooyu day indi problème moo tax ma bëggoon euh, ñëw ci président Macky Sall xam naa li ñu dese. bëreetul nekk waaw li ñu dese bëreetul kay. président Macky Sall yow de. Euh, te moom li ngay wax ak moom ci penc mi bëri na. waaw mais xam nga du ma dégg. non <laughs> président Macky Sall moom. demee fee eh, gars yi Adja Marème tegal ko mbaxalu Saloum mu teg ci ataaya. est-ce que dina lay dégg. <laughs> kenn du ko waxati lu mu dégg <laughs> ba ci. si mosu ñu laa woo la daal ci ci cadre boobu. nee na non non waaye man xam ah, ah, man xam ah. man bu ma génnee fii maa ngi ci yeneen i affaire quoi non non comme man je opposition opposant donc man samay affaire moom xam naa ma ñoom daal du xaw a neex noonu quoi moo tax damay profité expliquer xam nga président Macky Sall suñu borom daa dogal. Hmm. xaaral ma dindi weer yi sax. parce moom sama waaye la ndeysaan <laughs> euh, li li daal Gambien yi ci Yaya Jammeh bu ma dal ci Macky Sall man dama ko buggaa <laughs> bugga <laughs> waaw man Gambien nee nañ Macky Sall dañu ko bugga waaw man nag Macky Macky sàlla nee nañ jàmme dañu ko bugga waaw man tamit Macky Sall du ma la bugga mm. xam nga lu tax ma bugga la mm. parce que Macky Sall yàlla dafa dogal ñoo bokk fi ñu cosaanoo mooy Boseya Boseya waaw tey jii bu ñu waa Lébu yu jógoon dañuy tëj dakaar génn leen mm. moom de xam naa moom may njëkk a àgg ndax am na 4-4 man horaire bi laay jël waaye guddi guddi guddi danaa àgg bosee <laughs> ndax man maa ngi dëkk añam si wol moom day jéggi dem ba ca kanam donc ñu bokk li ñu doon comprendre nga ah euh, bokk ci même ethnie bokk ci même région hmm. deuxièmement euh, moom ci politique mu mu la gauche man ma nampé la gauche mu doon communiste bu yàgg ma doon communiste bu yàgg waaye génn nañ ci yooyu <laughs> xam nga léegi ñu ngi yeneen logique xam nga comprendre nga. mooy euh, li nongoloo di wax. Hmm. yoon bi dafa lëndam da nga koy ñeme xuus jàll. Hmm. kenn jàllalewu la moom mu ko ñeme yoon bi. xuus jàll kenn jàllale ko ba tey mu nekk fii ma nit ma ñeme yoon bi xuus jàll mais accès gu ma fu mu àgg mais fa laa bëgg a bu jógee damaa bëgg ma toog xam nga comprendre y a beaucoup de choses euh, la, la, la vie n'a pas pour nous xam nga on a dû se battre quoi pour en arriver là où, où nous en sommes arrivés deuxièmement aussi je sais que profondément euh, il aime le Sénégal. Mm. même si des fois il peut mal aimer quoi loolu dafay am quoi des fois et cetera mais loolu c'est c'est lié la sa trajectoire personnelle. Mm. Euh, mais fondamentalement euh, jàpp naa ni ku am yéene ci Sénégal la. kon donc nit ki su tollee noonu euh, damay am benn cofeel te hmm. bëgguma euh, bu ñu nee ëllëg Léopold Sédar Senghor gars yi ne ah cam jàmbaar ja ñu ni Abdou Diouf ñu ne ah cam jàmbaar ja ñu ni ab Ablaye Wade acam jàmbaar ja ñu ni Macky Sall gars ni acam xam nga abi gànna mhm. ca way ba koo euh, di liital mu ñu ni Idrissa Seck mu ni acam man de waxuma kooku <laughs> xam nga ñu ni aji gànna koo di liital euh, Khalifa Sall mu ni acam man de waxuma kooku Euh, aji gàr na ko di liital siré acam ah, man de waxuma kooku xam nga euh, bëgg naa daal buñ ci tollee ca way ba une belle sortie quoi moo tax ma koy waat biir mm. encore une fois xam naa du ma dégg mais bon moi je fais mon devoir quoi bis bu ñu dajeewaatee fuuta nga yor say nag ma yor samay nag ngay sàmmi danaa la wax sa ay lii lépp waxoon naa la ko de waaye déggoo ma waaye kaay fii ñu sàmmi lekk suñu njur ni <laughs> àdduna dox mais euh, président man su ma ko dee analyser un peu un peu en faisant euh, xam nga Nietzsche Nietzsche. dafa doon wax ni euh, s'il y a les animaux euh, et plus précisément chez la vache. Hmm. une qualité que l'humain war ko jël ci l'animal c'est la ruminance ruminer c'est-à-dire que yenn yi lekkee ba pare ba ñëw tëdd ba ñëw tëdd xam nga ba mu tas malaxe ko affaire yi des fois foog nga alors quand je suis dans la ruminance li fi jot a xew yëpp mu intégré ko tegaat ko di ko jàmbal di ko xoolaat di ko xoolaat président Macky Sall euh, dama jàpp ne au plus profond de toi de vous excusez yow da nga jàpp ne Ousmane sonk bu bokkul sa ndam la su bokkee sa défaite la président du euh, du ndam du gàcc au contraire président Ousmane Sonko bañ a bokk kooku sa gàcc la. mais Ousmane Sonko bokk kooku sa ndam la xam nga lu tax président mm. vous avez été élu président par défaut en fait ba ñu demee élection 2012 Macky Sall ñaata la am 23 ou cinq pour cent. ci côté 20 yooyu la am vingt 26. kon loolu mooy valeur intrinsèque am Ablaye Wade du moo ko rawoon. mais Ablaye Wade li mu koy raw yëpp mais Sénégal dañ ko fi ni jógal. suñu valeur intrinsèque premier tour moo ñu koy wax deuxième tour c'était du dégagisme. waaye 65 pour cent. kon donc président Macky Sall yow minoritaire c'est-à-dire que vous avez longtemps été un président par défaut pour la première fois à travers le cas Ousmane Sonko vous avez la possibilité d'être un président élu. vous avez été un président par défaut aujourd'hui vous avez la possibilité d'être un président élu. Mmh. Tout dépendra de la façon que tu vas gérer le cas Sonko Sonko nga jaay ko doole defi pexe comme ni ñuy wax ba bokk ci kooku du sa ndam par contre ce qui va te réconcilier avec le Sénégalais mooy ki ñu bëgg mm. ak li yoon wax nga faciliter ko c'est en ce moment que tu vas entrer dans les cœurs xam nga loolu lu tax président gis nga loolu boo ko deful yooyu yooyu yaay président bi ñuy gën a gaaw fàtte ci histoire du Sénégal 2024 day jot. moo hmm. wuutu la takk jaq ja ca ngoon sa gars yi fàtte nañu Macky sàll tey affaire waa par contre nga teg ko ci raay bi def lu yoon wax ñu bëgg a bokk bokk te ñu génn ci tappale yi di nga des ci histoire euh, di nga des ci histoire Sénégal première chose. deuxième chose Ousmane Sonko defu defula dara Ousmane Sonko defu la dara danga koy jaay doole rek ak nit ñi gëm loola ni la Maroju Makhouroudia Gueye waxoon bay pël hmm. sa réussite est ma perte sa réussite n'est pas perte président mmh. c'est son échec qui est sa perte autrement dit ngeen disqualifier Ousmane Sonko sur la base du juridisme c'est votre défaite mais ngeen dem ak Ousmane Sonko gagné ko dans votre dans les urnes si vous en êtes capable encore c'est ça votre victoire xam nga lu tax et là foofu la ñuy tënkee grand euh, je vous envoie et je vous renvoie à Corneille Corneille aussi la littérature ouais. euh, Auguste euh, empereur de Rome qui avait un fils adoptif qu'on appelle Cinna hmm. et qui a été trahi par Sina ñu jàpp ko indil ko ko devant Auguste xam nga euh, Rome ca jamono yooyu bu ñu la jàppee nga trahir dañu lay pendre pendre Auguste teg ko ne ko nag duma la pendre malgré que yi ma def yëpp ñu ne ko lu tax Auguste ni je veux rester maître de mois même mm. comme de l'univers au siècle aux mémoires contempler à jamais ma dernière victoire sa à dire soo ko deful la dara mais même bu fekkoon sax da laa def